tay nak kuma gis xamne ma ngi togo ko xamne ken dotu ko présenté ki nga xamne mom modi rew mi ak bitim rew ñu gën ko xam ci bay jili mbay borom sangoguma xamna naa ngeen njëkkante waxtu dama ko daal di jox mu daal di nuyu ñi nga xamante ñoo ñooy sétane bay Djily ma lay nuyu dara ziaré waaw maa maa fay bay dam donc di nuyu euh, képp ko xamanteni bi yaa ngi jàkkaarloo ñoon di nuyu seetaan di nuyu képp ko fan sa Baye Djily Mbaye Sénégal borom sangoguma macha allah. Baye Djily Mbaye euh, tey daanaka boo nee Baye Djily Mbaye rek sa xel dem ci li xam ne moom moo di bawal loolu yaakaar naa ne dem euh, ko nekk ci réew ma bitim réew rek nangoon na la ko loolu nanga nga ci inspiré li nga xam ne boo nee Baye Djily rek sa xel daa dem ci bawal. waaw xam nga xam nga ñun bi ñuy bi liggéey bi ñuy soog a démarré donc dañu dëkk fii euh, bëgguñu tey di feeñu tele nit ñi naan kii fu mu dëkk. parce que nag gannaaw nag dañuy soog a commencé nag suñu. métier c'est-à-dire ñu commencé ko fii ci Bawol bu ñu génnee ak ku ñu man di nekk ci àdduna euh, bu ñu yéegee ci kaw seen li ñuy njëkk wax mooy Baye Djily Mbaye Touba senegal Sénégal donc Touba la ñu dëkk quoi nga xamante ne bii di ko wax di ko wax ba tey at yi ci gën a mag fii ci senegal boo waxoon pëkk-pëkk ñu jóg nga wan leen sama photo naan la Baye Djily bu Touba. Touba loolu nag moom euh, moom la ñu bëggoon daal. macha allah bëgguñu daal kenn du duñu identifié fenn. waaw suñu dëkk bi nekk. macha allah Baye Djili euh, Baye bu Touba comme ni mu ko waxee ma di leen fàttali nag Baye Djili mbay mii ñu toogal mooy borom Touba Sénégal Baye Djili Mbaye mii ñu toogal mooy Baye Djili mu doom a góor xam naa ñu bëree bëri nag dina leen jaaxal waaye mooy Baye Djili. mu doomu buur tey nag dinañ fas yéene dugg ci ay mbóot yu xóot lu waral doomu buur ak ak fan lañ inspiré li nga xamante moom ma di scénario bi lépp dinañ ko fas yéene euh, déggante ki nga xamante moom ma di Baye Djily mbay borom sangooguma ma dugg ci li nga xam ne nag yu bëree bëri bi ma ne leen Baye Djily laay dalal dañ ma laaj ne ma nag laaj ko ba xam lan moo waral mu inspiré loolu ak lan moo waral maanaam vidéo bi ak bépp bépp di ko mar nekkut sax Sénégal réew mi bitim réew ñëpp koo dégg mu ne doomu buur doomu buur doomu buur bàyyi ji lan mooy doomu buur ak doomu buur moo ko inspiré woo ak kan moo bind scénario doomu buur doomu buur bi parce que ñëw ko lay bëri na. waaw doomu buur benn film la boo xam ne dafay wax ci aada ak cosaan doomu buur eh, film la bu bu askan bi bëgg. parce que au Sénégal li ñu tàmm gis mooy eh, kër gu luxe am piscine oto bu rafet extra extra donc ñun nag ñu dëkkee côté Bawol té amna lo xamanteni bi mënu ñu ci cee dab waa Dakar. dëgg na waaw parce que féké ay immeuble la ñoo ko ëpp yenn auto yi yenn moyens yi donc nak ñom ñi ngi euh sensibiliser ci côté bé ci côté euh de gu rafet ci côté du piscine ñom ci côté bobu la ñuy yeetee léegi nag pourquoi pas nak ñun nak ñu yété ci benen fachette bi muy côté ada ak ko ciosan dembu andi magi dembu andi waxi dembu andi li ñu mom muy wolof quoi ndax buñu faté né ne avant l'islam di ñëw mag ni ngor lañu am amee waaw waaw donc kon avant xaliss di ñëw mag ni ngor lañu am amee ndax lo lepp après dafa ñew quoi légui nak ñu bëgg a sensibiliser nit ñi ci lolu quoi mo tax ñu andi euh film bo xamanteni bi waxi wax ci démb aada ak cosaan duppe ko nak dombu ci fit ci ngor ci jambar ci jom léegi ci fit jàmbaar ci jom comme nan nga ko waxee noonu léegi ndax yow yaa bind scénario bi wala danga ngaa fekk scénario bu teg nga jël ko wala ndax dafa am koo xam daf la bindal scénario pour nga war a ñëw tourné ko wala nan nga inspiré Dombu parce que voilà. man nag euh, man naa ni lu ma joué maa ko bind. scénario Dombu Bur bi yaa ko bind. maa ko bind maa ko bind A ba Z. léegi bàyyi yow nan nga inspiré Dombu boobu. waaw mais yow yow déglu ma yow yow. nekku nekku ci àll bi te xam naa ne ay buur ak yooyu fekku la fi. parce que yow sa bëri. non léegi nag inspiration boobu noonu ba tax loo teg ñëpp daal ci man ko naan très bien bàyyi ji li mu teg fii dafa garaaw. waaw léegi lu war a doon inspiration boobu. xam nga tey donc euh, gëstu rek moo ñu koy may. la donc bi ñu xoolee gëstu affaire Maba Diakhou Ba. Hmm. gëstu Lat Dior. Hmm. gëstu Buur Siin. gëstu extra extra extra. Hmm. donc dañu xool ñu buuri daan. dundee jëluñ ñu ci nag kenn topp ñu ci kenn histoire du Lat Joor du Maba jox Ba léegi nag bi ñu xoolee nag comportement pour yooyu ak am nañ ñu leen daan topp am nañ ay lingeer am ay dàkk am nañ ñun daan nekk ci dëkk bi ñu daan bañ ñu daan nangu daan am jaraaf buur bii daan am nangam daan am nangam léegi nag ñun nag loolu nag bi ñu ko dajalee nag ci leen nag xalaat suñu thème bu bopp tudde ko doomu buur joué ko dooni buur siin la ñu jël dooni Maba Jaxu Ba la ñu jël dooni Lat Joor la ñu jël dooni kenn kenn kenn lañ jël quoi lu ci am dañu ko créé andi ko lu ci am dañ ko créé andi ko ba ci ci doom buur boobu ca laa taxawee euh, doom buur boobu noonu dafa génn daal di def bës adduna bépp di ko wax léegi ma jékki du Dumbur man na ne sax euh, ca benn annonce ba ci lañ ko gisee mu commencé daw li nga xam ne moom moo di Walf lan moo ko yóbbu Walf noonu ak yan relation muy daw Walf te ku ne xam ne ne Walf lu télé boo xam ne maam lu jug rek daal daal donc doomu góor man maa ko yóbbu Walfadjri donc gisante seegu Sa waxtaan ci ak moom ak yenn cadre ya nga xam ne ña nga fa hmm. ñu bi après siyee ko donc ah ñu waxtaan ci déggoo waxtaan ci ba déggoo léegi nak ñu commencé diviser waaw léegi do do gun bo man nga ci liggéey ak wa fal wa wal parce que lo tamit euh, bëgg na mu leer ci nit ñi ndax wa wal dañu yëkkati xass bëri jox la wala nan ngeen ci ligé non wala yéen pour nga jallal seen image rek mom ngeen gëna bëgg naan parce que fi ñu bi dañuy lekk dañuy naan dañuy euh, dañuy transporter wu suñu bop xam nga euh, dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy soxla ay déguisement parce que doomu buur liñ ci def ci xaaliss mësuñoo am film boo xam ne euh, génn ne xaalis bu toll noonu dugg ci film bi dëkk la li ci dem ci doomu xaalis mm-hmm. mësumaa def film def ci xaaj ba xaajaat ba mu sàmm mm-hmm. parce que doom buur pourquoi mu metti mooy mm-hmm. lu fa am da ko fa andi teg ko fa xam nga tey su fekkoon comme film yi yii la donc euh, boo ñëwee ci salon bi da ngay ko chaise fekk fi ay fauteuil fekk fi kaas bi ngay naane fekk fi accessoire yëpp quoi mais dama buur yooyu amatul à l'époque la accessoire bu ci am yaa ko dem wuti ñëw teg leket yi da nga koy jënd ba ci siège bu buur bi toog déguisement buur bi muy sol mbaxana mi téere yi manto bi extra extra extra donc déguisement yooyu rek bu ñu ko dajalee rek ma xaalis bu bëree bëri la quoi. ndeysaan mais nag alhamdulilah yàlla def na mu réussir. ndax amoon nga ci ay sponsors yoo xam ne. dañu am ay sponsors am nañu ci deux sponsors. Hmm. restaurant Al Dazi ak Touba Android. ñom ñoo ci japp bu baax baax mais suñu yéene moy biñu biñu ko def benn yéene lañu am muy ba théâtre wa soso fi ci bawal ba tay bawal suñu am benn film yoo xamni ne mi ngi def au niveau international mu am bawal sa am série bu daw ci télévision au niveau international mu sam deug la voilà légui nak yéen gi mooy tey mu am ko parce que ni ñuy toogee di xaar waa Dakar yi benn mercredi ni ñuy toogee di xaar waa Saint-Louis benn mercredi wala benn sodi di xaar yenn série yi nga xam ne mi ngi def au niveau international pourquoi pas doomu Bawol yi mënuñu am film boo xam ni Sénégal dañuy toog di xaar comme ni ñuy xaar Wiri Wiri wala Pod et loolu moo doonoon yére bu jëree génn suñu xaar def si dañ koy dañ koy bu jëree jaay suñu yére dañ koy euh, parce que tamit waruñoo des ginnaaw ci aar quoi. donc yéene boobu la ñu am. te yàlla def na ko ci doomu buur muy première film bi nga xamante ne bii. njëkk daw bawal. waxuma la Touba de. waaw ah. waxuma la Mbacke si. raison la ju moo si njëkk daw télé au niveau international. macha allah. anda international comme ni nga ko waxee eh, bàyyi ji li ndax doomu buur boobu nag am na saison 2 wala amul saison 2 wala yéen pëne da ngeen ko arrêté ba te tamit nag attention damaa déggaaloon tamit ñu bëree bëri ñu ne est ce que du bàyyi ji dafa bëgg maanaam lu mel ne éliminer saaru chère yi nga xam ne day daw te nar a yàqu suñu suñu suñu yi est ce que du ngeen ci parce que ko gis li ngeen mag ndaw ci kilifa yi sax final bi waaw xam nga lu tax ñun ci ci dañu dëkk la touba gi bëgg nañ ci nekk def fi aar tey ba bàyyi wala ba jóge fi donc du ñaaw quoi waaw parce que na ñaaw ndax fi ñu nekk la donc ñun duñ jóge juddoo touba yaroo touba màgge touba jàngi touba euh, siiwee touba touba ñu siiwal ñun fii la ñu defee li def su fekkoon tey dañu dem Dakar di fa théâtre ba siiw ñu ne ah ñii ko Dakar lañ siiwee mm. mais li def fii lañ ko defee fii lañ koy génnee fii la ñuy siwe kon tay du yoon du yel tay donc eh, eh, eh, suñu image donc ñu koy gaspiller quoi dañu bëgg tay buñ ko défé lepp mara bu ko xol xam ne lii tubaa dañ ko jé mu ni gong quoi te loolu ci wan nañ ko sëri abdou karim ma karim mam akhla donc waxtaan nañ ci biiru bu saalam waxtaan bu yaatu mu xol ko rafetlu ko ñaan ñu ay sëñ xalir mu sëñ fallu ay yeneen mara extra extra extra extra donc te du suñu dem sax ba kër gu ñu neex. waaw ñu teg ko fa waaw macha allah. non loolu moom feeñ ci doomu buur moom ndax eh, yaakaar naa ne comme ni ma ko waxee. kilifa yëpp mën nañoo seetaan li nga xam tey moom moo di njëkk ba te amul lenn loo xam ne tey dinañ ne eh, lii bu doon daw ci télé bis bu ci kilifa yemoon danaan sàppi leen ko loolu gis nañ ko ci li nga xam tey moom moo di doomu buur te bàyyi ci li eh, mu ñëwaat ci li nga moom di doomu buur ba tey na ci laa nekk ndax doomu buur bi liñ ma ci wax dama laaj ko bàyyi ji dafa bëri loolu ndax dafa am ñoo xam ne da nga leen convoqué pour ñu ñëw joué ci wala ñi fi joué ñëpp ci Bawol gi lañ jóge eh, non ñu joué ñëpp Euh, dafa am ñoo xamante ne bii demoon nañ ba bàyyiwu théâtre fii ci boobu mais gannaaw nag maa ngi defar benn projet bu rëy. Mm-hmm. ma ni léegi nag pourquoi pas. Mm-hmm. mënuma dajale cadre yi boobu yëpp ñoo mm-hmm. participer ci doom te bi mu leen woowee. kenn ku ne ànd nga sa yéene. ànd nga sa temps ànd nga sa moyen. def ci ba def sax loo xam ne man mën naa sax def moom ci kaw. donc tey kon chapeau ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy acteurs ak actrices yi yi ci doomu buur équipe bu technique bi sama ma production. Mm-hmm. et tout quoi. Mm-hmm. donc gars yi bu doomu buur réussir. Mm-hmm. ñoom la quoi man donc. am <laughs> benn waay laa rek bu topp ci ginnaaw quoi. <laughs> macha allah euh, doomu buur boobu euh, nga suyee ci loo xam ne maanaam ñu bëree bëri buñ gisee bàyyi ji li may lim daan suyee ndax yow. Euh, wax nga ko léegi sa biir wax yow ku la daan gis yaa ngi joué maanaam sañse mën a habillé macha allah xam naa ne bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li tax xale jigéen ñi topp la ci muy bàyyi ji di bu génne day sañse macha allah xam nga defaru xam nga rek maam comme ni mu ko baaxoo defaru doomu buur bi na nga ñëw denc noo xam ne daanaka takk ci ay njañ ah maanaam ñu bëri mën la gisee sax man nañ laa xaw a ragal noonu tamit léegi tey ba pare tamit mu am li nga xam ne tey moom la am ci ay vie wala tam tey tamit ñaari ñaari ñaari version yi mën na la ñaari image yooyu noonu tey nan nga ah. xam nga xam nga euh, donc comédien bi mm-hmm. am lu naan personne mm-hmm. ak personnage d'accord donc personne bi mooy mm-hmm. euh, man sama jëm li may dox hmm. personnage bi nag hmm. mooy donc li may incarné hmm. donc mënuma ni damay and dem wara a jouer donc buur nekk doomu buur sol ay costume quoi deug la donc waaw euh, lu mu laaj rek gisso man awma karaw mais daña dafa jaar ma saqal sama bop pour ma def ay njeeñ donc dafa jar ni wuti ay ay ay ay rabat xam nga dafa jar ñu changer suñu talent parce que boo xoolee doom bur ni ñu waxee nii waxi wuñ ko ci doomu buur quoi voilà parce que waxi démb lañ doon wax sañ-sañ lañuy lañuy jaay xam nga buur ak doomu bur danaka su ma saan wax sañ-sañ lay jaay bëgg naa nga def nangam ak yenn baatu wolof yi nga xamante ni bii donc gars yi bëgg nañ ko ci loolu garab ba sa nekk di sa ndamtalu ku dul borom donc loo ko féexlu dëgg la ñaaral bi mooy ñaari kuy saa bu ñu mbalk ba seen i bañ day metti rek waaye waaye ku ne da nga mos ndax njobbaxtalu garab car ba sa nekk di sa ndamtalu ku dul borom mi donc doo fa feexlu donte nag doomi buur laa bugguma cee dugg coow di ci bari ndax ñaari kuy saa bu ñu mbalk ba seeni béy dina roofaloo day metti rek waaye ku ne da nga mos ñu yend ak jàmm donc kaddu yooyu la ñuy véhiculer ci doom buur mm-hmm. donc euh, ku ko topp da nga mën wolof mm-hmm. dëgg la ku topp doom buur da nga dégg wolof da nga mën wolof léegi li ma la laaj léegi saison 2 bi ndax wala parce que tontu ko ci question waaw waaw non mi nga mi nga en cours quoi yéen a ci liggéey saison 2 bi nag daay xaar ni ni ngi de mm-hmm. c'est que nag euh, budget bi moo métti quoi waaw budget budget doom buur wax nan ko génn nan wax ko euh, li ci war a dem ci xaalis su fekkoon tey un million wala deux millions. dem na ci saison un bi. saison deux bi dina jël quatre millions. waaw parce que tamit euh, dañuy yokkaat lépp yokku temps bi yokk nombre d'épisodes yi yokk euh, euh, déguisement yi yokk jaas yi yokk lépp quoi. mais quant à ay jàmbaar la. ay ndaan la. ba sacrifice bi sacrifice seen lépp. Mm-hmm. billaahi wallaahi. réussir doon. macha allah. acteur yi. man pas mais acteurs yi réussir nañ doon équipe technique bi. réussir nañ doon. actrices yi la même chose quoi. Mm-hmm. macha no non doom buur moom eh, yaakaar naa ne ñi ko seetaan ñëpp ñëpp ci apprécier parce que eh, adduna laa wax du na ne sax Sénégal aduna laay wax adduna ñëpp rek li nga xamante ne di ndax na film boo xam ne bu dafa def si aduna bépp kenn ku ci naan doom buur ndax lima ma ci gën a bayi, mooy melon, boo xamul dañ di mbay eh, ci ni mu meloon nga gisaat ko ci doom buur da ngay xam ne comme ni nga wax léegi personne ak personnage personne nag mooy jëmmi bàyyi ji li mbay gi natural fi ko def day parce que ci personnage personnage ki nga xam ne tey sol na pour waajal li nga xam ne tey moo di personnage am loolu loolu artiste dëgg dëgg dëgg moo ko a génne foofu nga xam ne a baax sama jëruñ jooju muy général Cissé moom kenn nga ci ñit parce que ci théâtre nga ah, xam ne moom tamit Baye Djili ma dikkaat boo ko tuddee Sénégal ñëpp ne Baye Djili Mbaye surtout ay fans yu jigéen bay ji bëri ay fans yu jigéen kenn ku ci ne di bëgg a rey parce que suñ koñ am na benn mère boo xam ne da bëgg a rey kooku a génn <laughs> <laughs> mu ne bu bëgg la bay ji ni la lan ma indi bay dafa am loo takk wala qu'est-ce qu'il a ci fans yi parce que lu bëgg mu bëri donc euh, a chaque fois dama koy wax man mosuma def émission. waaw bu ñu ma laajut sa diggante gi xale jigéen ñi. si jàmm salaam. man ak ñoom jàmm salaam la. mais yow jigéen ñi la maanaam dara jigéen ñi lan la toppee. Euh, abiyaas bi wala comme comme lan. non man xaw ma. yow yow yow tax nga gis man loolu. <laughs> mais dama la laaj man dama ma gis yow xam naa ko mais tax ay yeneen mais si diggante xale jigéen loolu tamit yaakaar naa keneen ku dul ma ne dina ko jaaxal. Euh, Mengendap bayar def ba yéen ci sant yàlla na tey waaw yéen a ngi jàmm baax a baax. dëgg nag ak saa mën naa jàpp. dégg ak saa ini, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mm-hmm, mm-hmm. xol. xamul lan moo tax sax xol ba dugg. dëgg la. waaw donc kon man donc mënu ma mënu ma gisee quoi. <laughs> waaye man wax dëgg yàlla mënu ma gisee quoi en samay xarit la am naa ci ay nit. Mm-hmm. lu ma bëgg bu ko jigéen ñi yëgee mu saafara. dëgg la ndeysaan dëgg la. lu ma bëgg. toq. comme du njëkk a sa nopp. doon mm-hmm. di jigéen bi. mais dana saafara. Mm-hmm. lu ma am. Mm-hmm. moom ma ci taxaw. dëgg la dëgg la bu ma amee événement sax. bu réussir yi jigéen ñi def. dëgg la bu essayé ñoom. la su ma toll ci aar ginnaaw yàlla. ñoom ñoo jàppale. fan si club xale baay ji dafa taxaw doon fan si club tudd ko xale baay ji. donc euh, di ci di ci rayante. di ci dégg nag. lu ne yang ko na bat nangam nangam ak orang ñoom donc ñu jàpp ko dem mais ma sen la gini nanti ak ci ci jigéen ñoon ci laa jëmee sax bàyyi ñu yow célibataire wala marié ak bu dee Mariana, Mariana, Mariana, nga kañ nga kañ nga nag mariana mariana sama jabar bintu baay ji bintu ya, baay ji seexuna maa ngi koy lépp de passage bintu ku baax donc koo xamante sama jabar. Eh? bintu baay ji daf maa wa teral. macha allah daf maa wa sagal. xam naa ne muñ kan la nag. waaw parce que xam nga tax ma la muñ. <laughs> non muñ gi du fii de. bintu avant ñuy marié la commencé. ndeysaan dëgg la dégg lu ne gis. Hmm. lu ne booba mën na ko gis. Hmm, allah waaw mais nag alhamdulilah allah bintu yow tam maa leen yu baax baax ndeysaan séeri baa ji nee naa la muñ kan nga ku baax nga gën a la góorgóorlu ndax li gën a jafe ci àdduna bi mooy jëkkëri artiste lu nekk nag da nga koy dégg sa jëkkër ji day taxawaalu sa jëkkër ji euh, yëmu ci yow sa jëkkër ji day doxaan mais nag yow yaay gëm li nga gëm xam li nga doon te xam ne bàyyi bañ naka ba li boppam bintu baa ji kon bintu maa leen yu baax di wax da nga nuyu ma sama yaay boobu ci kër yaay baa ji ak mboolem personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër ga ndax ndax ndax bày ji di ins bi nii nii nii yaa ngi ci yeneen di projet yoo nekk wala fi ne da ngaa def pause depuis doo mburu ba tey wala am nga yeneen yooyu yooyu tournawaat bari na ah. Ah. instant yi bu doom buur jeexee du ñu toog rek am nañ benn film bu ñuy def hmm. boo xamante ne bii di couple bii di couple tudd couple waaw ah. bii di couple hmm. boo xamante ne bii hmm. dafay wax ci côté jëkkër ak jabar ni ñuy fonctionner ci kër yi ndax des fois workshop yi andi ay problème ci kër gi. dëgg la des fois guddee gi. Mm-hmm. andi ay problème ci kër gi. dëgg la des fois jigéen pourquoi pas góor mënu koo lalal lal. Mm-hmm. jigéen ji xëy na def marché. Mm-hmm. yow góor gi nga defar lal bi ba mu jekk. bala nekk bi. boo dem nga dem. donc loolu lañu ñu andi. yi ci baax avantage ak ay compagnie ay quoi. des fois jigéen ñi ñu tooñ. mais des fois góor ñi ñu tooñ quoi. ma lu ci man di am. bu ñuy jàngale dañuy wax kat yéen jigéen ñi góor ñi mooy seen kilifa comme ni ko alxaan wax mm-hmm. waaw moo war daal nga daal di bind euh, vidéo ko dul tew yaa ko bi yaa bind scénario waaw vidéo ko ba ma waaw ba tay dama dégg baye ji légui nga ne yow da nga yaa bind scénario et puis yow yow yow manam yow man ne yow yaa montage n'est-ce pas euh waaw bu ñu ko ma monde waye légui légui monté to sango euh, production sango am na ay cadreur am na ay ay gaay yu xarañ yo xamne ñoy monté ko ci mëna jëriñu Mm-hmm. moom li ngay dégg muy gaaw. moom cadreur la en même temps monteur parce que cadreur xam nga buy monté ci lay gën a neex quoi. Mm-hmm. moom daanaka day filmé di monté ñu di jur. de passage maa ngi ak équipe bi sama production yëpp Cheikh Naa Faye Cheikh Seye Fallou Bey Maka Thiam ay tout quoi gars yi. macha allah waaw mbayanu ndeysaan sama xarit boobu mbayanu <laughs> sëñ fa dee nii naa la baax ngir ñu sama mbokk te maa nuyu baax mboolem TV man nee naa yéen ñi ñu baax ngeen parce que euh, mën naa ne ban dugalantee tax koo yàgg waaye boo duggante ñoom da nga xam ne dara nekkul ci ñoom comme noonu ma ko waxee rek loolu moo nekk ci nga xam ne tamit moo di bàyyi ji bàyyi ji nag ñu bëri bëri bëri bëri bë daa dañ ko dëkkale fii naa ko mais nit moom bala nga ko mën a kii rek nga duggante ak moom te damay dégg benn kilifa gu sell mu daan ma ko faral di wax naam euh, da ngay fexe la bëgg la la bañ la nga di ko la bañ la la bëgg la parce que loolu tamit dafa nekk ñaari version yoo bi nga xam ne ñoo ànd ak waa sama Guma TV gépp ma ne leen fi nga jàpp foofu la euh, Baye Djily Mbaye sa diggante ak artistes yi parce que tay Touba ku ne xam na ne Baye Djily Mbaye do mu ñuk fi artiste bu bari na ay artistes yu fi nek sa digënté ak ñom lan mo ci am ba tax na gis na ci ay ñu xamne ne gisuma len ci doom Mbour bi tay artiste yu mën jëlé waaw jam rek quoi sama digënté comédien Touba yëpp jàmm jàmm man amul benn comédien bu ma sa langal fi ci ci Sénégal Touba nag moom dama koo jëlale musuma sé am ak kenn xarmay bi yalla comédien yépp nak waaw dèjà jàmm laa seq ñoom ak salaam doo donc rek kastil la quoi ku am nga mais bëgg-bëgg ma feeñ boo ma ko joxee yooyu du doon parce que nekku nekk nekku loo xamante ni bii lu ma man la nit ku ne ak la mu mane donc nag loolu moo waral nag boo def nag rek kastil ku ne da ngay xool la mu méngoo nga woo ko doo nguur buñ ci soogoo rek commencé am ñu mais au fur et à mesure ñu rek dem rek di xaar ah bi kat donc di war na ko man ñu woo ko buñ bindaatee ba agsi ci benn jigéen ñu ne ah kii de di war na ko man ñu woo ko noonu lañ ko jàppoo noonu lañ ko jàppoo ba ni saison bi di jeexee ñu ngi am ay maam yoo xamante ne bii ñu ngi activité di di participer di ci film bi di doon lu wax naa ko léegi personne la ak li xam moo di personnage. xam nga xam nga ko dafay bari ñu ñu bari ñoo xamante ne bii dañ naan ah diw de dafa mën a jaay dëgg la. man boo ma gis man boo ma xam. Mm-hmm. loolu may barke. daa bëri tiitër. day jaay saar day xaaj. Mm-hmm. te gi ñaari yow suñu bàmba man man wu taalibe la. man man wu suñu tubaa rek laa ko. lay dëgg la xam nañ ko. barke Seydou Seydou Khadim doom ji ma njëkk am sama doom wu suñu tubaa laa ko defee. xam kon kon taalibe wu suñu tubaa ñun mënuñu yooyu. dëgg la mënuñu ko wallaahi. wallaay ma koy ñaanal nag yàlla eh, yàlla nañu ko yàlla fayal eh, muy muy seexul xadim mënuñu am lu ko sut dëgg la mënuñu am lu ko lu ko raw mm-hmm. lu ñu am moom mm-hmm. man lu ma am Serigne Touba dëgg la par Serigne Touba dëgg la billaahi bu ma jullee mm-hmm. woor nat asaka xeer sax bu ma ko doxee àndale ko ci mbedd mi nee naa yàlla xam ma ko Serigne Touba addiye waaw yow la xëy am moom amu ma dara lu ma fay denc sama bopp barke alxuraan kii lu ma def ci lu jox naa ko suñu la ko yàlla jox waaye lu baax dama xam lépp moom la macha allah yow da nga xaritu ñëpp la euh, bu yaakaari jàmm yi jumaa ji mag ji rek Mamour Diarra Mamour dana Cheikh Mbacke kenn amul ak ndax ñun bu nekk ci dëkkam bii di lekk di naan di noos lépp agaar ñu sant a Seexul Xadim nee naan sëñ Tuubaa kurul sax euh, nit moom da koy sant rab yeeg jinne yeeg maanaam ñëpp la ñuy sant a Seexul Xadim ndax ñëpp xam nañ ne Ahmadul Xadim rek moo fi nekk kon nag ndoo ko ba nga xamante dañoo nekk ci eh, dëkk mu sell bi bàyyi ji ginnaaw ñu njëkkantee waxtu ndax ku ne xam na ne li ñu desee ci waxtu bi bëriwut ak yooyu noonu bàyyi ji di may tey tey maam lan ma doon wax ne sa bët yi bëgg faa yëgg tey fan fan fan fan nga teg sa bët bëgg faa yëgg waaw loolu lay mooy kenn musa ak ah, ah, rek donc fu kenn musa ak laa bëgg maanaam fu kenn mës a àgg ci théâtre ba amul. waaw ah, ankay. ankay am na am na koo xamante ne bii. Mhm. Sénégal kii boo dee xool. na koo xamante ne bii fi ci àgg. Mhm. nit mu ko fa àgg. dëgg la ba Sénégal soo ba tey. Mhm. am na koo xam ne instant yi mu wax ak xam nga koo xam naa ko fi mu àgg ci ci nit musu fa àgg lim ci lekk mi mu ko ci lekk. bii ba Sénégal am na koo xam ne bii. li fi mu fi mu dem ci musique kenn mu faa dem fi ci àgg kenn mu ko àgg ñëpp ko ci xam. dëgg waa léegi pourquoi man nag léegi ma àgg ah waaw mooy mooy loolu rek métti boo gis dëkk ba am na koo xamante ne na foo xam ne kenn ko léegi nag bientôt nag man bëgg naa àgg faraw koo àgg waaw loolu mooy àgg moom fu mu sàkk ndax moom mu àgg bëgg naa àgg fu allah euh, euh, euh, conseil bi may jox mm-hmm. sax tu ndaw mm-hmm. nit lu mu gëm mm-hmm. ca na la Lolo, ci sama bop la koy xam amul benn metti bo xamante ni bi yang koy koy bi ci ca tapale man ci réussir donc kon euh, bu nit bu mu tax mu xaddi gis ngeen ni yalla bind bind sa fi la couleur bu ko da donc euh dafa am benn mak bu daan wax naan rus ñaan yalla lo xamanteni bi ñak man nako may te mag ni fiñ tollu mm. donc tay kon tay yow euh, euh, dafa yoon bi yalla tay gis nga nit ku nek boo nek ci ab dëkk nga nekk fa menuisier wala maçon wala plombier wala électricien wala musicien ak koo mënti doon yow métier ba amal yéene pour bu ñuy tudd ndaanaani dëkk ba boole la macha allah est-ce que yaa may dégg loolu rek la boo xam ne yow yéene boobu noonu doo ci xool dara loo ci mën di dégg da nga ko jàpp loo ci mën di gis da nga jàpp métier boobu ba fii yëg li nga bëgg amoo ba donc ikon, kon may conseil askan wi képp koo xamante ni yaa ngi dugg ci dara donc nelkat fekki Touba la te nekk nelkat donc bokk na bëgg naa bokk ci ëllëg ñi ñuy tudd ci dëkk bi ñu ko fi dàq wala ñu fi ëpp tur wala nangam nangam ministre bi def noonu maçon bi def noonu euh, théâtre kat bi def euh, yow pourquoi pas ni ah man kat maa ngi ci émission bi mais bëgg kuy ku gën neex émission mu nekk man. c'est c'est possible parce que gëm-gëm la rek quoi gëm la rek quoi <laughs> ah waaw. macha allah <laughs> bàyyi ni mu ko waxee gëm-gëm la kon yaakaar naa ne message boobu nga xam ne jo lancé na ko ci ndaw yi. ñu gën a yokkaat gëm-gëm bi comme noonu mu ko waxee nag lu ma gëm la ndax <laughs> man yaakaar naa ne daa farati dajale defar émission yaakaar naa ne boobu a a neex nee naa daam jaabi kenn di yow sëñ Mbacke Birame nee naa naa ne bu tourné yéen moom nag ne moom ah maa ngi wëndeel waam bàyyi na ci nga xamante moom sangoo guma Baye Jili Mbaye borom Touba Sénégal yaakaar naa lool leer ñu bëri nag dañ may laaj Baye Jili kañ lay sangu Baye Jili xanaa doo mos a sangu de voilà sangu boobu. xam naa de bu yàlla <laughs> laa de sangu pour naa ne ndox yi ci forage yëpp dinaa ko jël xam ko sama yaram bi bés sangoo waa Sénégal xam ne ba sang kenn du boo ndax day wax boobu. ba tey yow kay nga sànq wala yow sànq moom. non pourtant nag instant bi yow fi may woo. waaw jot naa ko de. jël naa savon bi ñàmp bi ay tout bëgg ko sangu pour ñëw ci émission yi parce que da nga sama nit. ndeysaan léegi nag bi ma ko waajee. a ma boo fekk maa ngi bëgg a sangu mais damaa daw rek ubbi di potent bi xam nga li war di mën ko yaay dem. waaw waaw yaay dem. macha allah Baye Djily yaakaar naa ne moom émission bi neex na waxtaan wi neex na sama diggante ak Baye Djily ah, ñu bëri ba doon ko xaar naan du yomb baax ma leen béggee baax baax mboolem ñi tey boo xaree xol bi fekk ca Baye Djily rek maa ngi béggee di la baax baax di la wax ne rek mi ngi nii ndeysaan bu ko neexoon bi ma ko wooyee mu ne ma Baye Ram parce que tey ji ne dafa waroon a génn ah, waaye teewut ndeysaan tey ci samedi bi dafa dagg Ndiaye muy Baye Djidi borom sangooguma ah, di ñaan nag mboolem kilifa yi nga xamante ne yéen a topp émission bi da ngeen ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex parce que man damaa gëm nga Baye Djidi tey bis bu maanaam li bëgg bu ci jotee rek maanaam waa Bawol gépp dinañ ko yëg parce que bu ko neexoon kat mu yem fi mu yem yem ci roqam defu ko mais teewul fépp foo xamante nit nga fa muy ndaw ak ku màndi doon dina di jëm a xaj ci pour génne la ah, pour kon lool nak mom danaka golo mom loko bañ bañ nangul ko mëna toñe mom lool dañ ko koy nangul baax di ko ñaan suñu borom defal ko tawfiq taysir xam na ne ma sha Allah lim wax lepp lu wër la ndax man mi lu bari bari luma ci ki dugulante nak mu ba xam ci lu bari bari bari kon lool daan ndaysan xol bu rafet la yor ma sha Allah ko defal ñi nga la di liggéey équipe technique nga liggéey man tam leen di sant sant go xamne am na tabale bi amul ak yamukaay kon ndaysan waxtaan bi neena ma sha Allah fi teul ni sama xol dafa sedd ndax ngeen yoon

waaw euh, dignité c'est l'essence de l'assistance humaine. dignité mooy lépp. gis nga théâtre bi bu ñu bëggee xañ suñu dignité ak suñu personnalité. nañu ko bàyyi te téye suñu dignité. donc lépp nit bu dara tax nga ñàkk sa dignité. bu dara tax nga ñàkk sa iman. l'islam daf ñu tënk. ci lépp quoi. avant lépp tamit ku l'islam la. donc tey kon lu ñuy def nañ ci xool loolu. Euh, sant ci yàlla bu baax a baax di ñaan nag yàlla jubal ñu ndax wax naa ko léegi yahdi man yashaa wa yu'adhibu man yashaa ñun ñu nit mel rek yàlla la soob ki siiw yaa la soob ki am yàlla la soob ki ñàkk yàlla la soob quoi nañu naan nag yàlla ndax moo ne fay ne xare yu jox jibu dax wata daay ku leen jege laa bu leen ñaanal ma may leen waaw la ñaan leen ma ma leen. ngir sant ma leen kon yal nañu yàlla may. <laughs> yàlla yàlla na jàmm kay. bàyyi bàyyi ji damaa bëgg tey ñu ñëw ci question réponse nag te lu ma laaj damaa bëgg mu ne question. ah ah, ah bu fi amee rek. non si bu tontu bi amee rek. non non dina am parce que parce que yow yow tamit artiste nga. ordinaire lay wër Sénégal gépp dina siiwul Sénégal gépp xam la daal day yoon nag ñu xam sa question réponse. ñëwoon voilà euh, bàyyi lan ma sa plat préféré sa plat préféré. man lépp laay lekk. loolu ay xeer laa lekk. jigéen bu ñuul bu xees. lépp boo indi ma baax na. na baax rek. bay bii kan mos a joueur ah question réponse nga wax. kan mos a joueur non ma amul joueur. kan a mbër. a candidat ji euh, <laughs> laa man daal ab sëriñ laa muy sëriñ Tuubaa. <laughs> non non déglu ma question réponse moom waxewu ma ko noonu xam nga tey bu fekkan. waaw mais. <laughs> mais mais mais meew meew meew yow déglu ma yow comme ma doon am yoo xam ne tey maanaam maa sax bu doogee da li ñuy wax dañ ci ñëwee mais da ngaa mel ko ku ragal jëriñ la ah, ah, ah. xam nga am nga yow ñaari mbër bu dee bëri am nga ne oh, oh, man kii man sama maat am nga mbër waaw man man am nga fu mel léegi am nga kii laajal ke laajal laajal jiw non non man kenn ma xëy ñoo nekk suñu suñ suñ suñu plan ma leen laaj nii sénégalais dañu koy dégg te bu sañ mu leer seen bopp man man ñaxas sax ñaxas maanaam boo boo jaxasee wu suppu kànja dama daal boo ko ni ma lekk parce que donc dund boobu laa xam. bay waaw mbër. mbër kilomètre gañ ku daan baax na en tout cas daal li may bañ mooy daal. Euh, euh, li indi ñu tardé mais ku daan baax na. jigéen bu xees jigéen na ñàkkul baax ku baax na ko parce que Seydina Mohamed bi ñu waxee nañ nañ tànn ay jikko wala dangam danga wala taar jikko la wax ko jikko mooy gën jikko la jiital. donc waaw waaw kon kay moo gën bàyyi maam yow sama question réponse bi dañ ci nëmb dañ ci nëmb du xuusani te pra dañ ci waroon xuusani baax baax na parce que man lay yow sa yow question nga wax waaw réponse waaw laaj nga waaw ak tontu mais li ma tontu mu dul lépp ah waaw xam nga lépp dafa yow moo wax la nekk ci man non non mais lépp dafa yow xam nga tey su ma ne laa tey mi ngi mel tey ma ne la kan ak kan toog ci plateau bi nga ne ma ñoom ñaar loolu xam nañ loolu mais nag il faut que nga découpé il faut nga ne bàyyi jibi wala nga ne bàyyi wala nga lu ma la ci wax moom lu ma la ci wax wax naa la su fekkee yow question nga bëgg ak réponse laaj ma ma tontu la daw ma ci benn question boo ma laaj tontu naa la looy lekk man la man lépp laay lekk waaw wax dëgg yàlla lépp ma gën a man lu ma gis lekk. waaye mais am na ci loo xam ne lépp da nga koy lekk mais am na ci plat boo xam ne mooy sa plat préféré. non man am na am na plat boo xam ne xëruma ci waaw loolu mën naa ne am na yoo xam ne xëruma ci waaye mën naa ne waaye préféré moom lii comme comme loo gën a bëgg man loo ma tey ma lekk dama daa moom laa xam ne moom xëruma ci bañ ma ko nag dama koy lekk waaye su ma amee leneen lekk ko. waaw waaw waaw. ji war si ñoom mooy ji léegi li ma li ma la laaj ne da nga da nga ci maa wiiri wiiri ma ba jaar daal wiiri ci nekkaat ci dëgg yàlla ah, moom lépp laay ay xeer daal la lekk ay <laughs> ma lekk suuf sax bu ma xiifee ci suuf si daal laa mën xam di lekk. islam moo ko eh, di macha allah Baye Djily Mbaye ngeen jàkkaarloo ndeysaan seen plateau fi nga xamante moom ma di siiwal sa talent ma jàkkaarloo ci TV émission mag nga xamante moom moo di sa talent. kon Baye Djily Mbaye xam ne dañ ne waxtu li ci des bëriwul xam naa ma jox la nga tàggatoo tàggatoo bu du tàggatoo nga tàggatoo ñi xam ne ñooy seetaan ak sa fan ngi ngi am bu baax nga ab taalibe laa rek ma koy ma koy fàttali askan wi. xam nga nit tey boo ko dee gis xamoo ko. dèjà mën nga ko siisee lu nekk. mais ñun euh, ay taalibe yu Serigne Touba la. rek la ñu euh, di ko ñaanalaat yàlla bu baax yàlla na yàlla fayal parce que lu ñu am moom di sant képp kuy fan si Baye Djily Mbaye Touba Sénégal borom sangagu parce que tamit donc li ñu doon donc nit ñi ñu ko def quoi tey su fekkoon tey da ngay joué rek kenn du la ko seetaan donc après da ngay bàyyi. mais boo joué ni ñu xool ko apprécier la donc ñoom ñoom la quoi may sant nag euh, Sénégalais yëpp gis nañu taxawaay bi di sant euh, suma jabar Bintu Baay Jili encore une fois yaayu seexu naa donc lépp moom quoi lu ñu am jàpp jàpp na ci sunu palmarès quoi parce que gënu na fay metti donc ñëpp daw mu taxaw quoi kon tey ñu ngi koy ñaanal yaayu seexu naa sama doom jooju di nuyu euh, képp koo xamante ni bi rek yaa ngi ci groupe Sango Gouma TV Sango production di la Diouf jiti ko jiti Sango Gouma production bi maa ngi koy nuyu moom euh, jàmbaar la te gàtt la xam nga nit bu bëggee rek euh, mën na am lu ne quoi waaye instant moom temps yi mi ngi ko waxee waxtaan <laughs> bi. Euh, <laughs> macha allah comme ni ko Baye Jili Mbaye waxee borom Sango Gouma TV non rek la amé kon dal euh, baye jindi may mi ngi ni comme lima koy wax rek man dama koy def masse spécial ak sante bu baye jindi may waxna ko légui dama koy waxat dina ko bu len xol bima la woyé nga dal may téngal ak yoy dal may def comme ni ngi def waye defo ko ndaysan ma sha Allah dag ma wéfa la sa bop wan ma ne man nak yef suñu liggéey na té yow bay dam lo nek man ci lool mako ci sante baxa bax diko ci gëreum di sante baxa bax soxnam si nga xamné nak ndaysan sa xamata mi nga tuddu muy bindu <laughs> bindu baye jindi mom daga xamna mo invité an nak inshallah tax la man dag am salam ñew ansifa ndax toogal na ko. bàyyi dama damay damay. da ngaa bëgg ñëw kër gi noo gën a bëgg ñëw ay gannaaw bi ñu toogal. waaw xam naa moom toogal ma ceeb gi ceeb ginaar ngay toogal ah ndeysaan bintu loolu laa def xam naa nag ci sant ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ñëpp di la jox dig daje seen beneen émission ak beneen daanaan incha allah taala wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërë ngeen jëf.